soxna Fatou saw mu ànd ak mbooloo mu takkoo takku ñu àndandoo ñëw fii ci kër Serigne Touba gi ci ma naan dalal nañ leen jàmm comme niñ ko xamee rek muy ahlan wa sahlan waaye bi nu ñëwet Serigne Abdoul Khoudous yëkkati na ay kaddu ngir dalal leen fii nga xamante ni mooy Toubaal Mahrousa ñu déglu Serigne Abdoul Khoudous bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin noo ngi nuyu euh, sunu directrice soxna Fatou Sow ak euh, sëriñ Sami <laughs> ñun moom baatu Serigne dañ koy jiital <laughs> ak délégation bi yëpp rek ba a juum euh, di leen dalal ci turu jenn euh, comptoir commercial nga xam ne Canal Horizon moo ko tànn jox ko région de Diourbel mu nekkal ko fi mu doon lu sedd suñ xol ba tax na dëkk bi dëkku bu spécial la boo xam ne xam nan xam ngeen wàccuwaay bi bu baax a baax ba tax na dénk gi ngeen ko dénk lu sedd suñ xol la ndax ci xay na ci dëkk bi leen dëkk ci famille bi leen bokk loolu it lu sedd xolu sëriñ bi la xam naa ne bu demee sëriñ Abdou Samad xëy na dana yëkkati kàddu yooyu euh, ba tax na daal ñu ngi leen di dalal bu baax di leen wax ne euh, dal leen ci jàmm comme ni ko waxee léegi rek yàlla na doon jéego yoo xam ne ay yokkute lay doon ci ñun ñëpp ci kilifa yi li ñuy xaar ci yéen ba tànn leen jiital leen suñu kanam ñu nit li ngeen di xaar ci ñun ba jiital ñu ci région bi yàlla defal ñu ci ndam defal ñu ci tawféex ci barke weer wu tedd wi nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne sant leen ma ci yàlla ndax yàlla ci la ko may li mu am lépp kon nag ndam loolu sëriñ bi am yàlla nañ ko am ñun ñëpp asalaamaaleykum wa waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw boo xam ni sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne moo leen représenté fii ci Touba ak li ko wër jël na kàddu yi dalal leen macha allah muy yu am solo kàddu yet jël nañ ko daal di koy jox ki nga xam ne mooy directeur commercial bi di sëriñ Samine kon ñu bàyyi ko moom it mu daal di indi ay kàddoom incha allah bismillah ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm sëñ bi sëñ Abdou si dalal bi dalal tey ñu ngi kontaan am mbégte yegg si fi tey pour mën a euh, saafonteeg sunu partenaire bi fi nekk euh, defaale sunu activité yu ñu war a def fii si dëkk bu sell bi donc ñu ngi ànd ak sunu délégation ak directrice générale bi soxna Fatou Sow bi nga xamante ni moom moo jiital délégation bi tey yegg si fii si dëkku bu sell bi di Touba euh, di kontaan loolu torop torop torop si dalal bi ngeen ñu dalal di ñaan itam eh, li ñu fi indi ñu jëlee ko fii ak ndam eh, te yàlla defal ñu xéewal si si si événement bi ñu nekk ni def si jàmm eh, gan yi war a yegg si dal si jàmm te ñu ñu fekkee ko ay ati ati at yu bëree bëri bëri bëri bëri donc kontaan nañu trop Diène kontaan nañu si taxawaay bi kontaan nañu si dalal bi ñu dalal di rafetlu li di ñaan yàlla nag mu continuer ay ati ati at incha allah jërëjëf jërëjëf. man lañu jiital fii ci région de Diourbel. Hmm. yamuñu ca dénkaat ma région de Louga. Hmm. am ci man yaakaar ju ju rëy. Hmm. yoo xam ne lanu ca man ña ngi ko cay def. ci jom ak fulla. ndax ay liggéeykat lan yoo xam ne. maa ngi nettale rek daje bi mujjee daje Dakar. xëy suba ba ngoon jot. sami taxaw Ibrahima naan soo ba léegi taxaw bi suñu fi lenn lu dut nu ñuy def ba atteindre sunu objectif liggéey rek maam nu ñuy def ba liggéey ba li ñuy xaar ci ñun ñu amee ko noonu ko bëggee mu doon liggéey bu am solo tey jii nag ñu ñëwoon doon doon doon ziyaare si ànd ak yéen bis bi ànd ak yenn weer wi weeru tedd wi nga xam ne sëriñ Touba lépp lu mu am ci la ko amee ci la am ndamam lu rëy loole ba mu ne sant leen ma sama borom kon nag weer wi bu xasee dugg rek sànq maa ngi leen di tooñ ne leen ñun waa Canal moom tàmbali nanoo safar waaw ñu ngi woon ci kër sañ Tuubaa gi ci Daaru Manaan fa la ñu daje safar bu ñëweet nag ñu wax ñu wax kàddu yi am solo dama nag buñ sañoon daan nañ ñëw dem ziyaare ci sëñ Muntaxa dem fu bëri waaye nag ginnaaw yow la yaa nu représenté fii bëgg na noo saafoonteeg sa kilifa. Mm-hmm. waaw saafoonteeg moom. Mm-hmm. Euh, nuyonteeg moom. Mm-hmm. seedeel kook suñu digganteeg yéen. waaw mu doon diggante bu am solo boo xam ne. ngir nga jot ci rek ay coono yu bari la doon doon. waaye ñoom man dan ma tànn am ci man confiance am ci man yaakaar. dénk ma liggéey bu mag la. du bu ndaw. ndaw ñu bëri di ci jariñu mm. lu mu gàtt gàtt rek kii mooy Moussa Sow mm. techniciens yi lu mat euh, euh, trent 37 techniciens yoo xam ne mm. ba ndóoyeen am na ko ca bokk ñoo xam ne weeru dee am loo xam ne canal mi ngi koy mi ngi jugee ci kanaal di dugg ci ñoom te loolu daawul am bu dee point de vente yi ñu ngi ci téeméer ak lu tegal te li ñuy xaar ci man mu àgg sax ba junni te ñooñu ñëpp dañuy jariñu waat ci biir liggéey bi incha allah bokkut ak nag équipe bi nga xam ne mm. tey sama équipe lan mm. ñu nekk ci man mm. mel na assumale comptable bi ak Ibrahima ak ñoom ñëpp weer wu dee ñu am lu ni lu ni lu ni lu ni gis ñu ciy gis seen bopp kon liggéey la boo xam ne mi ngi participer ci développement réew mi waaw ndaw ñu bari ñi ngi dugg ci liggéey bi ak lu mel ne tele yi sëñ du Samad rek mi ngi may jot ci suba xam naa danañ fa jaar moom it télém bi ak samedi ya ni ko ni canal horizon de dugalee Lamp Fall ak Almouridi ak ñoom ñëpp. Mhm. fexe ba mu dugal fa ba lépp lu ñuy def ci yoon wi. Mhm. ndax moom ñu am yitte lan ci ci ci yoon wi. Mhm. di di di wane njàngaleem sëñ bi ak lépp. waaw moo taxoon daal ñu ñëw doon la ziyaare si rek waaw ñëw jox la sa loxo di sàkku it ñaan nga ñaanal leen bu baax waaw soxna faatu Sow moom day soggi jël daanaka service. Mm. waaye mu tombeek bis bi. Mm. kon nag nga ñaanal ko mu am ndam bu baax. équipe bi yëpp am ndam. ñun ñiit li ñuy xaar ci ñun ñu amee ko nañ ko bëggee. Ah, waaw di leen sant nag sa kanam. Mm. si seen taxawaay. ndax borom daaru mux daan wax ne ki ñu war a sant mooy ki xam li ko war mu def ko ndax kam war te defu ko ndax euh, ñi ngi ñuy jàppale mel ne sami mi vraiment saa su nekk ñu ngi xool ñu yaatale liggéey bi ni koy kiiyee mm. liggéey la bu dolli ko sama liggéey mm. waaye liggéey la boo xam ne maa ngi ciy jëlee xam-xam bu bari mm. réccu ma ko dal waaw kon nag ñu ngi lay nuyoo la ñëpp rek bàyyiwunu kenn di sàkku ñaan rek nga ñaanal leen bu baax a baax ba fi ñu bëgg a àgg ñoom ñëpp ñu àgg fa réussite totale waaye eh, dama leen di doll delloo am nuyoo ndax nuyoo sunna la boo ko defee am aw yiw boo ko bàyyee ñàkk aw yiw waaye dellum nuyoo nag mooy farata soo ko defee sun boroom nga ko séqal waaye boo ko defut bàkkaar da lay war moo tax ñu ne leen wax aleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu noo ngi leen di dalal bu baax nag waaw di leen xamal ne e, lii de neex na ma lool ndax njaboot gi te itam bi ngeen di laata jël lii di ko yëkkati di ko teg ci loxol Abdou Dieng mi am na lu ngeen xam door a jëflanteeg moom laaj ngeen ba sonn kon nag la ngeen xamoon ci moom biñ leen ko waxee na ngeen xam ne loolu la waa daaru xam ci moom waa loolu la waa Tuubaa xam ci moom mooy gone la waaye ko jub la ku nangoo liggéey la du yàqal kenn lenn te yaakaar naa bu ngeen jëflanteeg moom incha allah da ngeen xam ne ku mat a jëflante la lii ngeen di dox nag loo am solo la danaa bàyyi sëñ Cheikh mu àggaleel ma waaye dama koy wéer nag ci kàddu gu gàtt gu sëriñ Touba waxoon daa ma sa woote sëñ Mamoor Jaara la waxoon ne ma day woote naa woote bi jot na lool ndax ñeent xeble yëpp ma wuy si kon mel na ni li ngeen di def bokk na ci liy jottali kàddu sëriñ bi ba mën a tasaaroo te yaakaar nañ ne njariñ la ak yiw ndax laakin on naa di kulal bi laa di la waxoon maa ngi woo ñëpp nag réew yëpp sax la waxoon moom kon nag bu yàlla dogalee ngeen jóg jëm si fii dajanteeg weeru tedd wi nga xam ne lu nu am ci la nu ko amee sunu bëgg it ci la nu ko ci la ñuy ñaan yàlla yàlla fajal na ko ci barkeb Sayul Xaddim mi nga xam ne moo tax ñuy woote noo ngi leen ci ñaanalaale it li ngeen sumb yàlla dimbale leen ci te yàlla bu leen bu ngeen ci am ay tolof tolof yaakaar yi ngeen ci amit yàlla bu yaakaar yàq yoon li des nag ma jox ko sëriñ Cheikh mi nga xam ne wàll googu moo ma ci man moom li des nag Abdou Ndiaye moom <laughs> seen waay la. salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu leen ci turu sëriñ bi li sëriñ bi wax daanaka dolliwaat ci yeneen kàddu xanaa mënoon naa ñàkk. waaye nag comme dañoo jox ndigalul ñu wax danañ ci wax ay ñetti baat rek loolu mooy li jëm ci li ngeen seq ak sëñ Abdou muy seen jumtukaay bi njariñ li mooy lan mooy informer kon yàlla ni ngeen informer nit ñi yee leen bañ xam te ngeen bañ a bokk ci ñiy deforme loolu am solo la ndax dama mas seetaan benn ministre français ancien ministre muy wax ne dafa ragal média ñu ne ko lu tax nga ragal média mu ne dafa mën a defar nit ba ñëpp ne moo baax waaye dafa mën a yàq nit ba ñëpp ne moo bon mu ne loolu la ragale média kon média support la boo xam ne bu am doole la ci société bi ñuy dund ñun fi mu ne nii rawatina actuellement fim ne nii ñu ñu tollu ci année yi kon sëñ Abdou bu ngeen ko dénkee zone bi nga xam ne fi la dund fi la juddoo kooku de wàccu leen yoon wa ndax euh, jàngat ab societé ba xam na mi dunde ak euh, na mi tooge lu am solo la mooy tax nga mën a percer dugg ci ñoom waaye soo ñëwee ak sa jikkoy bopp mën naa am sax sa jikko baax na mais da ngeen koo bokkul moo tax ñaare du ngeen déggoo ndax boo demoon France fi mu da nga fa gis imam boo xamante ni costume lay sol di jiite boo ñëwoon def ko Tuubaa gi fi mu ne ñu daal lay xarab te pourtant araamul kon ñee day seen loolu see day seen aada ñii seen aada kon jàngat aada yi doomu aadama bala ngay dugg ci moom lu am solo la waaye ndokk nag bi ngeen sàkkoo bunt bi nga xamante nii fekk na mu juddoo fi bokk fi xam ko xam nu muy doxee ñoom hmm, loola it ñoo leen ci sant bu baax a baax doon na it xale boo xamante ni bu jub la suñu jarbaata waaye jarbaat bu jub la bu bëgg a jëm ca kanam kon am na loo xamante ni nit ñi dañ koy wax naan intellectuel dañ buñ ko waxee rek dañ jàpp ne ki toog ci banque tubaab yi rek la mais intellectuel mooy ki nga xam ne dafa jàng ba dañu réer ak quelque soit nag fu mu ko jàngee ak ban langue la jëfandikoo moyen yooyu pour communiquer ak ñam ñam ñam seqal àdduna kon lam jàng moom it intellectuel la ci. parce que bu pratiquer nga pratiquer rek danga gis ne yéen ñaar yéen a bokk lu ngeen wax kon loolu euh, ngeen xamee ko noonu te jàppal ñu ko te xam ne ku bëgg a dem ca kanam la ku ànd ak moom it mën ngaa dem ca kanam comme yéen nag da ngeen a bëgg a dem ca kanam yéen canal ah ndokk bi ngeen àndee kii dem ca kanam jërë ngeen jëf sëñ Xaadim ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax euh, kontaan nañu trop ak délégation bi ñu àndal ñëw toog fii tey Euh, sëñ Abdou daanaka wax na lépp ba pare lim si mën a dolli de xanaa ma sànni si tuuti kàddu si si ndigal ak topp sama patron bi toog fii muy sunu DG euh, ñu ànd ak délégation kanaal canal yëpp ñëwoon nag participer si événement bi nga xamante ni xam nañ ni kam ni am ngeen si yitte bu baax a baax a baax sëñ Abdou dalal nañu bu baax bi ñu yegsee euh, ñi ngi nekk nag di continuer mooy sunu visite yu ñu nekk di def. pour euh, wane itam sunu cofeel ak li ñu war si événement bu toll comme événement bi nekk nii donc kontaan nañu trop si dalal bi ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee waat kay ati ati at yu bëree di tàllal nag sunu loxo di ñaan di leen ñaan pour ngeen ñaanal ñu pour que liggéey bi ñu sumb daal ñu mën a continuer liggéey boobu noonu comme ni ko sëñ Abdou waxee daal sunu gëm-gëm mooy que ni li ñuy def nii mu mën a am njëriñ si doomu dëkk bi donc ñu ngi si góorgóorlu sëñ Abdou itam taxawal ñu fi bu baax a baax a baax a baax kontaan nañ trop ma profité si occasion bi si liggéey bi mu nekk di def si zone Diourbel wax na ko ak Louga itam bi mu nekk daanaka daal bi ñu mu commencé liggéey bi ba léegi gis nañ si yokkute bu baax te ñu ngi koy ñaanal itam mu gën a continuer incha allah noonu donc kàddu yu ndaw yooyu rek laa si bëggoon dolli di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu bàyyi leen fi ba ci kanam a kanam a kanam allah. ñu fas yéene ànd ak ñun weer wi waaye fas yéene ànd ak ñun màggal gi def promo boo xam ne dana amal njariñ dëkk bi def loo xam ne lu lu lu lu lu marqué la. ndax ñun murit en général sunu kilifa boo ko yëgee rek ñun dañ lay yëg te gis nan ne yëg ngeen dëkk bi yég ngeen sëriñ bi yëg ngeen ko laataa ngeen fi ñëw ndax gis nañ. offre yi ngeen di def ci Touba ak li euh, ngeen xamee ne lu spécial la ak ni ngeen ciy def kon nag duñ def lu dut rek sant bu baax di ñaan yàlla li ñuy séentu ci ñun ak yaakaar ji tax ñu jox ñu liggéey bi yàlla defal ñu ci ndam ñun ñëpp xëy na yéen it kilifa yi nga xam ne ñoo nit am na lu ñuy séentu ci yéen loolu it yàlla defal ñu ndam ñun ñëpp di ñaanal équipe bi yëpp di ñaanal ñëpp rek ñi ca direction ba ñi ñëw ak ñi ñëwut ak ñi nekk fépp rek ci biir euh, Sénégal di sant bu baax DG di ñaan rek nga joxal ñu suñuy kàddu ci mbooloom ñi équipe bi nga àndal yëpp rek ne suñu xol sedd na en tout cas ñun jën comme comptoir commercial ak sama équipe ñi ngi sant bu baax di rafet njortu ne li ngeen di xaar ci ñun danañ ci def jom danañ ci def fulla danañ ci def yitte ba ni ngeen ko bëggee ñu amee ko noonu kon nag yàlla na yàlla barkeel rek incha allah. Ah, sama kàddu du bëri ah. du bëri ah. déedéet déedéet sama équipe commerciale xam nañu lu ñu a def non. waaw dinañ ko def nañu bàyyi kàddu gi DG bi mu wax looloo ëpp solo aywa jaajëf. seen delloo ziar. baa yaa ngi am may sant bu baax. sa taxawaay ci Touba tey lan la. bu rëy. mooy sama wax nañ ko sànq. maa doog a yegg si. Mhm. sama génn bu njëkk Touba la. Mhm. mu tombeek weeru safar. mu tombeek weeru safar. waaw ñëw nag si comptoir jën. Euh, mu mhm. dalal ñu dal bu rafet. Mhm. ñu war a seeti tamit sunu jëwriñ sunu euh, sunu kilifa fii si réew bi. Mhm. moom lañ naa dem seeti donc muy doon mbégte rek pour man. donc euh, li ma fi dégg si moom si équipe commerciale yi dal na sama xel ci ambition yi ñu am ñun waa ñun waa Plus. am nañ yaakaar bu mag si Touba. te li ma dégg nii dalal na sama xel donc maa ngi dem. ak ah, contentement. waaw ah, bokk na si li ñu doon yuutu du ma ne man rek dama ko bokk ak sama équipe de direction sami mii ma jox kàddu kàddu bi ñun ñëpp ñu bokk ndax yaakaar bi ñu am si euh, li pare xew Touba tax na li ñu mayul waa Afrique yëpp ñu may ñu ko ñu tàmbali promo bi tey tàmbali ko si ñaari fànn mhm. muy si recrutement bi muy si réabo bi te je pense que ñiy jaay fii ñëpp ñoom xëj na ñoom ci gën a jekk pour wax si mhm. donc suñu yaakaar gën a gën a yaatu donc ñu ngi xaar chiffre Touba yi donc soxna Ndeye Fatou mii du ma bàyyi ma ma wax naka sudu noonu moo ñu yoral boutique bi fii tamit bokk mhm. liggéey bi ak ñëpp fii donc euh, mu ngi noonu duñ ko boole jërëjëf kon bi ngi noonu kon dernier mot bi Aliou Mané lan lay doon jërëjëf Aliou wax na ko بخدمة الأول بقرب أو